bokki jullit di soppe yi xarit yi seen seen fondation Kër Rasoul sallallahu alayhi wa ci seen émission maa bëgg Rasoul ci seen site bi nga xam ne mooy fkr 92 point com moo di lisuwaat ak yéen comme ni ngeen ko xamee ngeen ànd ko seen soppe seen xarit bu leen yéene yiw lool lool lool lool muy Abdoulahi Mbaye ñu ko ak sunu caméraman bu baax bi Omar Rasoul nga xam ne xale la bu am taxawaay ci biir fondation bi tabarakallahu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel xam ngeen ne gan gi doon teeru agsi na muy shahru ramadan al mubarak muy shahrul xayri wal barakati di weeru yiw di weeru tedd nga di weeru mbaax di shahru taawun di weeru dimbalante di shahrul mahabba di weeru cofeel di shahru mahabbatillahi di weeru sopp yàlla subhanahu wa taala qudratu di weeru mahabbatu rasulillahi di weeru sopp sayduna muhammad sallallahu alayhi mooy ziyadatul mahabba dollee ko cofeel di weeru shahru ummati rasulillahi weeru xeetu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy nun ñii kon nag ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax eh, di nag weeru alquranul karim di shahrul quran ndax mooy anniversaire am ndax shahru ramadan alladi unzila fihi alquran ci la ñuy wàcce alquranul karim ci guddi gu foor gu tedd gu màgg mooy laylatul qadri du guddi goo xam ne gu ràññeeku la goo xam ne xayrun min alfi shahrin loolu yëpp mi ngi amee ci biir weer bi dégg nga ci la alquran wàcc moo tax nag e, gan geen doon teeru agsi na gan nag bokk yi e, kenn du ko xañ ñaar ñaar moom kenn mënu ci dara gan moom moo moom ñaaram muy xoole ak bu demee nettali su ko defee nag e, muy weeru yiw di weeru tedd nga di weer woo xam ne bu agsee rek dégg nga tabarakallahu liimaan yi day dolleeku dañ ko yëg su ko defee nag kon liggéey bi ñëw na te bariwul borom bi nan ayaaman maadodaat ay fan dong la ñaar fukk ak juróom-ñeent mbaa fanweer e, su ko defee kon ñu bàyyi ko xel te yomb naa muñ te nag lu rëy lañ ciy jëlee déglul borom bi li wax kon nag waa fondation Kër Rasoul ñu ngi leen di ndokkeel ci weer wi di ndokkeel Mouhamed Abdallah dégg nga tabaarakallahu ci taxawaayam ci fonk fondation bi ci taxawaayam ci sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy sunu teraanga ñun ñëpp ànd koog membre yi yëpp ci biir fondation Kër Rasoul ànd koog yi ànd koog ñi bëgg Seydina Mohamed yëpp sallallahu alayhi wa sallam ndax damay wax toujours ci émission yi may def ak fu ma ko mën a defee damay wax toujours ne eh, tabarakallahu fondation Kër Rasoul képp ku sopp yonent bi yaa ngi ci biir képp ku sopp Seydina Mohamed yaa ngi ci biir su ko defee kon yéen ñëpp ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax eh, liggéey bu rëy bi nag si na muy weer wu tedd wu màgg bi di weeru alquranul karim nga xam ne boo xasee ñëw jàkk yëpp day riir barab barab bi jàngukaay yëpp day riir alquran riir ci gox bu nekk ci côté bu mën a doon ci biir mbooloo mu mën a doon rawatina nag fii ci fondation Kër Rasoul fii ci seen site fkr 92 point comme ci ñi nga xam ne tabaarakalaw seen yitte yëpp seen bëgg-bëgg yëpp mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bëgg weeru koor lool daf ko bëgg lool lool lool moom wax na sax ne su ngeen xamoon li ngeen am ci weeru koor yéen xeet bi ñu ne ko ah mu ne kon da ngeen mébét weer wi doon at kon da ko mébét ndax eh, tabarakallahu yiw wi leen ci nekkal gis nga weer wi bu tero dafa am lu ñuy wax malaayku ramadaan malaaka yoo xam ne weeru koor rek moo leen di tax wàcc si weeru koor rek mooy tax ñu wàcc si ci àdduna buñ ne taafeer weer waa nga ne ëllëg ñu um ci guddi gi lañuy ñuy tàmbali ñëw ñëw nekk feeg weer wi ñii dañuy film ñii di enregistré ñii di jël son ñii di def lii ñii ñëw di rondu nit ñi ñii di xool ñii di xool agent secret yi du ñu jeex yoo xam ne sama wiyee lan jógee asamaan lan jógee ahlu sama lañ léegi su ko defee ñoo ñooñu fi la ñu nekk fi la ñu nekk bañ na taafeer weer waa nga nële dégg nga tabarakallahu eh, ëllëg lañuy ñuy julli fajar gi dégg nga nga xam ne kenn xaddul ñu bët set ñu daal di war a dégg nga noppalu ci la ñuy quitté ñu wàccoon ci kaw suuf yépp malaayka yooyu ci la ñuy quitté bokkul ak nag bokkul ak nag malaayka yi nga xam ne dégg nga dañuy ñëw laylatul qadr yi ànd ak Seydina Jibril kooku ci guddi googu lay ñëw bokkul ak malaayka yeneen yi fi nekk ngir ramadan bi ñooñu guddi laylatul qadr lay ñëw ñoo ñu ngi ñëw bu jant bi na duut so muy guddi leylatu xadri ñu ne naan leen naan jot na jant bi dugg na malaaka yi tàmbali cëppeelu muy guddi goo guddi laylatul xadri borom bi nag daf ko nëbb ci biir muy guddi gu màgg gu tedd boo koy jiix nag lambal fépp lambal fépp lambal fépp am na sax ñooñ dañ wax ne première guddi gi bi ne taafeer weer waa ngi ñu ne mooy laylatul xadri am ñu ne déedéet laylatul xadri dégg nga buñ ne taafeer weer waa ngi ëllëg ñu julli guddi googu mooy laylatul xadri am ñu ne déedéet am ñu ne déedéet am ñu mooy guddi ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñaar dégg nga te loolu ci gëstu gi la waaye lu ci mën a xew daal ñu ne ko daal mi ngi ci biir weer wi moom Laylatul Qadr mi ngi ci biir weer wi kon bu weer wi nag taafeer rek jàppal guddi gi ñëw ne la ah, bàyyil ma seet ko ci ñuy jeex ndax langa bi langa bi buñ ko salee ci jal yi def ko ruur ndomba jal bu ne ngay làmb di laal di laal boo ko dajee rek daj nga la nga soxla woon mooy mooy mooy mag mooy kàkkoo ji te mooy papa pëmm te mooy liñ soxla su ko defee nag kon loolu nag ci weer wii la nekk ci weer wii la nekk inna anzalnaahu fi laylatil qadri damir jooju mi ngi dellu ci ramadan inna anzal mi ngi dellu ci alquranul karim inna anzalnaahu fi laylatil qadri moom alquran ci guddi laylatul qadri te laylatul qadri mi ngi ci biir weeru koor mu ngi ci biir weeru koor lu ñu ko xamal déggoo li bi wax chahru ramadana alladi unzila fihi alquran weeru koor ci laa wàcce alquranul karim te nee na manque wàcce ci guddi laylatul qadri malaaka yi escorté ko mu ñëw ba baytul izza ci asamaanu ñaareel ci benn bâtiment bu mag bu leer fa lañ wàcce alquranul karim muy xaar sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw muy wàcce ndànk par ndànk ba xëy jeex muy alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan su ko defee loolu di teraanga bu rëy ramadan nag su teroo muy weer wii dañ daan gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam yokk loxoom ci dépense yi mu daan def ku mën a dépenser la ku fonk xeet bi la ku bëgg jaam ñi la ku bëgg boromam la ku bëgg alxuraanul karim la ku fonk jaamu yàlla la da gis mu yokk loxoom ñu ne li mu daan dépensé yokku na te ramadan bee tax da yokk loxoom moo tax su ko def bu ramadan dikkee kenn ku ci dañ lay ubbil compte mooy compte ramadan kenn ku ci ubbil compte bokkul ak bi nga ne bi nga juddoo ñu ubbi sa compte yiw loo am def ci loo def ñu marqué ko ci ci yiw loo def ñu marqué ko ci ci yiw ba ba ngay ba roogi di jeex ñu paqueté la ñu marqué woon nag dem jox borom bi lu ko ci neex fulande multiplier ko dencal la ko nga dem fekk ko fa bokkul ak nag ramadaan compte boobu mooy compte bu mag bi Ramadan nag suñ ne taafeer weer waa nga ne la ñu ubbil la compte jàmbure dañ ko ubbil compte ci weer wi. ay marama xiifa mi ngi ci biir compte bi su fekkee dara yàqu parce que compte bi lu yàqu du ci dem moo tax borom bi ne na ngeen di góorgóorlu bu leen yàq li ngeen di def ci seen kàddu mbaa seen jë jikko mbaa seen jëfin déedéet bu mu ko yàq bu mu ko yàq bu mu ko yàq ndax. borom bi dafa ne laa tubtilu saddaxaatikum bil manni wal aza bu leen yàq li ngeen di joxe tama tax bu leen ko yàq di ca teg seen làmmiñ bu ngeen defatee par rek was na il xayra war ma fil baxri jëfal yiw ak tedd nga sànni ci géej sànnil ci géej su ko defee nag bu weeru koor dikkee nag day rawati kenn ko ne dañ lay ubbul ubbil compte ramadan compte boo xam ne ramadan lay doon lépp loo def ci weer wi ci mar ci xiif ci lu mën a doon ci dimbale ci sellal ci rafetal ci jàng alquran ci sikkar ci salaatu ala nabi alayhi salaatu wasalaam ak lu mu mën a doon rek dañ koy paquetal lépp def ko ci sa compte ramadan loolu nag mooy teraanga yi nga def bokkul ak li borom bi ne asawmu lii wa ana ajisi bi bokkul bokkul loolu li nga def ci biir ramadan bi la yaa ko moom yaa ko moom ci boppam nag ramadan ci boppam nga xam ne borom bi ci boppam moom moom moo la ko sant ne na asaw mu lii koor maa ko moom wa naa aji si bi maa koy fay loolu nag xam naa ne da ngeen may dabu ji rek li mu wax noonu da may dabu ji ci suñu beneen émission bii dikk parce que Omar Rasoul def na ma suñu man bi def na ma waxtu wi mi ngi jeex kon nag koj leen ma rek ci kat ci ci ci ci fkr 92 point com ci seen émission maa bëgg rasul sallallahu alayhi wa daañ ca dajewaat incha allahu lu tax borom bi ne sawmu lii wa ana ajisi bi koor maa ko moom maa koy fay kon nag yéen nga noon seen soppi Abdoulaye Mbaye ci ci caméra bi dégg nga ak technique bi tabarakallah Omar Rasoul ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp di ndokkeel fondation bi yëpp ci dégg nga ci njiitu Mouhamad Abdallah dégg nga tabarakallahu e, kon ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل